وهو أصل الأصول والأنجال وعليكم أول الوجود وجودا وهو أصل الأصول والأنجال waaw sang bi laay maa nga woon ca Ndakaaru ca sama cheikh muy Ahmed Khalifa Niass ñun ñaar ñuy ay jirimi Khalifa Niass sama baay génn àdduna 1959 ma am fukki at ak ñeent Ahmed Axam am fukki at ak ñett Sidi Lamine am juróom-ñeenti at ba ñuy suul sama baay waa ku mënuñ koo woy bàyyi oo baaba njaay ñoo ñëpp ñuy sikkar fa bi ay bu guddoon tey ba ma dugg ci kon nag lenn ci jirim yooya sunu baay man ak Ahmed ak Sidi lamin dénk ñu baay dénk mu jël ñu jëlee ñu ci mbay yóbbu ñu booleeg ay doomam mais gën a tànn doom yi fi magam yi bàyyi lu nu am mooma lu nu mel mooma moo taxit du lu ñuy nëbb maa ngi koy dénk léegi sama doom ju baax ji Ahmed tuddee ma ko muy as-sayyidul arab yi di avocat nag waaw sama yet bi benn waaye ne ma ndeysaan tonton arab yi yet lay doxe ma ne ko damay ndoos de doxewu ma yet de bu leen jàpp ne màgget laa de <laughs> ma ne bàyyi yomb naa xamle lool nekk naag man ci Maroc ci ñeenti weer di faju si ma bàyyi liggéey ba tànn xidmaal baay nekke too mbir mi xidmaal baay moo gën jàng moo gën lépp ci àdduna ba fi mu ne nii ñu naan ma sa bayre bi ma ne zuyina bi ànd ak Dakar ji nga koy sëlmoo nga xam ne ku seen Dakar boo ne boo la koolee sëlmoo ma de li nu am yépp bàyyi la sëtu Mariama Ñang bii tey dafa seral sunu xol ndax jàngal nañu ne wala tax sabanna alladina qutilu li tax waxut maatu fii du palaasam fi sabilillahi amwaata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun ndeysaan mariama ñang boobu di sa maam biñ ko joxee bàyyi jës dafa ñëw ne ko sab jaam laa aka mën naxe naxe sab jaam laa jigéen ñi bu amoon tuuti ma wax ci Mariama Ñang mi nga xam ne doomi Faati Zeynabu la Faati Zeynabu Zeynabu Caam moo ko jur Zeynabu Caam ak Seyni Faama Caam ñoom ñoo bokk ndey ak baay jar naa tagg ndax Haadi dem na mais demut léppam yokku na wax dëgg yàlla dañuy gërëm yàlla bu baax a baax a baax nun nag di gërëm Baay Ñas benn waaye ne ma yow baay ngay wax fu nekk dëj baay nangam baay ma ne ko fu ne laa koy waxee benn waaye def ne ma moom dafa ñëw ci baay ne ko dama bëggoon nga may ma xaalis mu ne ko foo jëm mu ne ko damay baali ndeke baay xamut baal naa ko baal mooy fan mu ne ko damay baali mu ne ko luy baali fan la ne mu ne ko damay fecci fecci wu ma de li ba waa ji wax rek laa nettali <laughs> bàyyi daal di génn junne ne ko gis nga li nga nekk ci nibboo ko même jaaduwut loolu laa récompensé loolu laa la jox kon bàyyi ñëw na di jàngal nit ñi nañuy wax dëgg moo tax fu ma nee bàyyi rek am na lu tax ci tënk lool Ahmed Khalifa maag moom ñoo reer ñu ànd ñu waroon a ànd ñëw du la layee dara ndax sa baay moom la ñu bàyyi boolee mu ñuy defal ay pièces ay nangam ba ñu dem jàngi su ma doom jii di Ahmed Iyane Niass ma koy ngénte 1980 ñëw ci sëñ Haadi mu génne 150 mille jox ma ne ma wa aatul maala ala xubbihi ma ne ko zawil qurba mu jox ma ko ma ne ko ah ndaka réew mi yaa ci dàq yaa yaa ci dàq mën a firi alquran wa atul maala ala xubbihi zawil qurba wal yataama wal masakin kon nun bu nu goree te kenn du nu gën a gore lu bàyyi xewle gannaawam nàngam ñun dana ñëw toog sant nañ yàlla ndax doom yi ñu ci juróon doom yi itam yàlla dimbale na leen ñu bëgg bàyyi bëgg bàyyi chance la ah. wa man yuhibbuni wa man yaraani xool leen fii jannatil xuldi waxut sayadxulul janna mais jumla ismiya la indi fii laa buxtaani nag ñeneen lay waxat man duma ci àgg ay bu ma amoon temps tey bañ jox ma ma way laa ilaha illa allah ahmed xalifa nee na ñëw nga këram at mu jot ngeen waxtaan diggante doom ak baay nee na mbégte moomu mu am nee na mënu ko concevoir nee na ñun ñaar saa yuñ duggaan néeg baay ba taxaw ku nekk ci côté ndey jooram bàyyi dafa naan eh, toppal toppal toppal boo ñàkkee xel ni ab ciise ciise wala mbayeen mbayeen moo la hee eh, jógal nga dem ci ndab lale Ibn Arab Kaay Ahmed Kaay ci ay orphelin moo tax benn waay ne ma yow xanaa xamoo baay foo toll naan bàyyi rek man nag ba ma jàngee ba pare damaa jàngi tontu jàngi pànk ma ne ko déedéet man aw ma baay mu ne ma ha ma ne ko jigéen joo xamee ne daf doon wasin yàlla moom ko ndey ja mu bàyyi fa liir ba liir ba maam la waaye yaay lay wax gis nga kurpeñ bi ma ko dóor rek ma daal daanu ma ne ko ñun baay sunu baay dafa génn àdduna bàyyi fi bàyyi te baax mooy def loo xamee ne boo ko defutoon kenn du la yedd te ku bëgg wane mbaaxu baay gi dangay seet say mag bañ génnee àdduna yow loo ci def téléphoné sax ne ah temps bi day koor gi nangam mbaa néeg yi kii wut nangam sax defoo ko xam ngeen li ma wax boo buggee xam li baay def da natt loola man nag li ma am ci moom dama ko jënd ñeenti weer laa bàyyi njàng gi yëpp di ko xidmaal sëñ daam ñii <laughs> dama yëmbu ñu ñëw ba ci aéroport ku ma laaj rek ma ne ko ñëwut mu ne bàyyi arab yi mii moo muus yaakaar naa am nañ fi lopp ñetti weer mu ne ah jege na ñeenti weer de mu ne mu bàyyi njàngam yëpp ñëw di la xidmaal waaye dana leen sut suta sut suta sut mu jiital ma ñaari ràkk ma ne ñii rek mu fudd jullit timis la woon mayit ma ma xabdu ixtiraaman lahu mu def nii loxo bi wàcceel sama loxo ni ma xam naa sa xol te xol rek am solo moo tax man bàyyi rek laa foo gis may demit di nàngamit lu ne moo ma ko jàngal biñ nekkee Maroc sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ñoom ñaar di xarit di nàngam ñu ne dañuy dem aéroport ndax sego teeru ji Senghor Senghor dafay dafay indi ji eh, eh, dafay dem France francophonie mu ngoog ambassadeur bi ooma may gone ak mu ne ma dimbale ma ci bàyyi ndax gis naa loo ko wax mu def ko ak ah, moo ko sëñ Cheikh Mbacke ma defar wax ko ba mu baax na ko dama la koy ñaan rek nga dem mu ne ma lu Cheikh Mbacke wax ma ne ko nee na loo wax loo wax ñu génn mu ne ma Ibn Arab ma ne ñes mu ne ma demal ni wittali Cheikh Mbacke ñu dem Senghor ne eh da ngeen a feebar man rat rek laay naan rat ca cinq heures du matin laay jóg bàyyi ne ko jóg cinq heures du matin waxutoon cinq heures nag cinq heures du matin te joo jóg julli Senghor amul njariñ mu ne Ibra Ñas li nga ma bañee bëggoon naa koo xam bu lu ma mën a tuub ma tuub mu ne ko li nga bañee yonent bi bëggoon naa koo xam ba dindi la ci mënumaa mënumaa bañ mënumaa bëgg ko bañul yonent bi kooku mooy Mawlana Cheikh Ibrahim ah kon ci tënk ma yemale ko fii suma doom ji nag damaa ñëw mu sëkk jox ma loo xamee ne bu ma ko waxee da ngeen may catu da ngeen a mën ne ko dang yàgg de incha allah ah incha ah. dana fi yàgg dana fi yàgg yaayam dañu koo saraxoon muy saraxe waaye yaayam bi ñëwee ci kër gi bokkutoon ci jigéen ñiy tontu tontul rido xam ngeen tontu ridoom nga ñëw taaj añ bi mu tàng jër taseeg mu bank mu wax la nangam nga ñëw ba ci rido bi nga tontu rido bi <laughs> wasalaam